Ndiaye fi mu la xalifa bi dugg si muy Cheikh na Cheikh Saad bu xalifa Cheikh Mat Djimbira ànd ak doomam yi nga xam ne ñoom la àndal kon dañuy jël kàddu bi rek jox Cheikh Habib ji mu yeggalee yëkkati kàddu xalifa bi incha الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أين رحمة ربانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقيني يكتي كاردو لو قمني دنتي جوت ديغل ديغل لي خليفة الآب خليفة الشيخ مجمبرة الشيخ صاحب جمبرة, دي صاحب جمبرة. mii teew fii ci suufu tànt bi tey ngir ñëw ànd ak yéen guddi Seydina Muhammad bu tedd gii waaye daf nu waxoon balaa nuy commencé ñu fàttaliku way dawlu yi ñi nga xam ni ñoo bokkoon ak ñoom ëtt bii bokk ak ñoom tànt bii bokk ak ñoom jéewu Seydina Muhammad bii yàlla bàyyi nu fi tey du sunu njàmbaar yàlla mi leen yóbbu du seen yaam fa aalun li yàlla du mu namb rek loolay am loolu la nam woon ni ñoom ñooy jiitu ju ñu des fi cheikh maam jaay baay cheikh nee na ñu bokk ñun ñëpp jàngal leen ñaan ndax adduwaawu silaahul muminin ñaan mooy gànnaayu jullit fee ñu tëdd tey ñaan lañ leen deseen te buñ leen ñaanalee ñu nuy ñaanal ñu nit yàlla mën na leen rus ba nu yàgg fi mu santoon nañu wax leen kenn ku dekk def ñetti astaghfirullah def fatihatul kitab def salaatul fatihi wala salaatu ala nabi ak juróom ñaari inna anzalnaahu ak ñetti qul wallahu ahad bu nu paree kenn ku nekk wax ci làmmiñam cheikh man jindiraak njabootam ay taalibeem ak ñi jiitu di nekk barsax ci barke guddi Seydina Muhammad gu màgg gi yàlla yàlla yeesal njéggal ak yërmande ci bismillah fatihatul kitab salaatul fatihi juróom-ñaari inna anzalnaahu ak ñetti li ilaafi ak ñetti li ilaafi huwa allahu ahad bismillah yàlla yàlla jéggal ñu teewlu jox xalifa bi tey jii mu ànd ak njabootam gépp ñu wóor ko tabaarakallah mu fas yéene waxanteeg yéen aw fekke déwén mel ni ñaan bi nangu te ñun ci ñun kon nag danañ ko delloowaat mu ñaanal nit ñi ñaanalaat yàlla yàlla nu fekk déwén yu bari te kenn ku nekk tànk ya nga seq ñëw ba ak yi ngay demee yàlla ko yàlla def faju aajo àddina ak àllaaxira zaahiran wa kon ñun ñëpp ñu teewu ñu déglu Cheikh Saad bu Djimbira bu Cheikh Mouhamadou Djimbira mu délivrer message am incha allahu rabbi nee na mi ngi mus seytaane auzu billahi min asheytaani rajim auzu billahi min asheytaani rajim auzu billahi min asheytaani rajim ummata muslu la moom seytaane ndax seytaane bu njëkk benn mbindeef la woon benn jëmm la woon waaye léegi am nay doom am nay jarbaar am nay sët ku nekk placé na fa kenn ni ko foo mën a yàq yàqal loolu parenthèse bu mu doon ubbee euh, nee na gannaaw loolu julli ci fii sox ci suufu tànk bi yépp mi ngi leen di nuyu góor jigéen mag ak ndaw dafay wax ni kaay leen wuy si yomb na. waaye li ñëw wuy si la ñoo jafe. ñi fi daje ñëpp. fi daje ñëpp nag. damay wax ni ñëpp du ñuy du ñuy xaadir. tarixa bu nekk mi. tarixa ngi fi. waaye benn jullit la ñu am. waaye benn jullit la ñu am muy ndax nee na loolu mbégte la ci moom. di leen ñaanal yàlla. fan bu gudd ak wér gi yaram. ngeen di mucc tey mucc leen. di leen dénk ni. ndongo ndigal. ndongo mooy taalibe. ndongo mooy taalibe. dafa war toog déglu ndigal. tey jii guddi gu ma mës a toogee bi sedd waaye guddi sedd tey jii. barke alxuraanul karim. dafa mel ni xolam bi. danu koo xar danu koo xar. jël doole doole galaas tëmbal ko ci. ndax li ma doon ñaan yàlla. ndax ko ñaan sama baay Cheikh Mat. di ko ñaan baayam Cheikh Mat Djimbira. ba fi Cheikh Sidi Bouya fi Cheikh Sidi ba léegi mu may ma. mu dajale njabootu Cheikh Mat Djimbira ñun ñëpp. ñu nekk benn dànk. ñu nekk benn dànk. ku nu dal mu daanu. waaye bu nu tasaaroo. waaye bu nu tasaaroo. du wàññi kenn dara. kon mu dolli leen ni. jamono bii ñu ne. seytaane la jamono seytaane la dootul moom kenn foo dem ma nga fa yàlla lu yàlla musal ci seytaane maa ngi am mbégte encore ci lii ma wax ni la daje njabootu Cheikh Mat Jimbira gii toog nee na mi ngi am mbégte ci lii mu wax ni njabootu Cheikh Mat Jimbira tey yàlla may ko ñun jot ko lekk mu tëye leen wallaay amul fayam moom mission la woon. nee na mission la woon. bu ma bàyyi bàyyee woon. bu ko bàyyam Cheikh ma dimbale bàyyee woon. bàyyee woon. bàyyee woon. bàyyam Cheikh ma dimbale bàyyee ko ko. bàyyam Cheikh ma dimbale bàyyee ko ko. mu nekk ci di ko daw ba tey. mu nekk ci di ko daw ba tey. saa borom nangul na ko ko. bi ci des moo di. bi ci des moo di. maa ngi gërëm. mi ngi gërëm. képp koo xam ni. képp koo xam ni. sa doole. sa sa alal. sa def nga ko. def nga ko. ci lii nga soxla ci ci ci ci guddi Seydina Mouhamed ci tànn bi. Jimbira ci ci njiital Cheikh Taali bi ànd ak Cheikh Mamori legeesu ko legeesu ko yàlla ak ñaan ci barke Cheikh Ahmad Jimbira ak Cheikh na Cheikh Tan ak jëmmi yonent bi moo tax nu réaliser du mel ni ay borom yi a ngi fi ba nu fi jógeeg léegi kenn déggatu leen waaye Cheikh Ahmad Jimbira ba ba nit ñi di liggéey milliards xaalis da doon liggéey ay milliards jëmale ci yàlla ak yonent bi suñu borom ma koy indi ba tey. kon loolu laa amoon di leen wax sama mbégte. loolu la amoon di ko wax mbégteem. bi ma yàlla maye ma dajale njabootu. bi ko yàlla maye mu dajale njabootu Cheikh ma jimbira gépp. nekk ci loxoom. bu nee waaw ñu ni waaw. bu nee waaw ñu ni waaw. bu nee déet ñu ni déet. kenn amul lu ko ëpp. kenn amul lu ëpp dàq njaboot kenn amul lu dàq njaboot yi. xaalis du faj bànneex. xaalis du faj bànneex. njaboot mooy faj bànneex. njaboot mooy faj bànneex. yàlla na ko yàlla yàggaleen. mi ngi def ñaan bàyyee leen li ci def. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتك الصراط المستقيم ويرزق الله نصرا عزيزا والذي انزل ذاك الذي قلوب المؤمنين يزداد ما مع ايمانه ولما ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما اللهم انت رب لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب الارض عليك ما شاء الله كان ولم لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي ألم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أعاد بكل شيء اللهم انك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت على بنياتنا إن ربي على صراطهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله جل boo nee waaw ñu ni waaw boo nee déet ñu ni déet ndax liñ ko wax noonu rek la demee boo ci àll di taxari bëgg matt bu nekk nga yanu ko da nga ba sonn mais boo paree matt ma takk ko say ba mu dëgër boo ko nee yëkkee teg sa bopp da dem ba yegg kër ga yal na yàlla defal nu takk bi dëgër ba kenn dootul égaré wu ba kenn dootul dem sëriñ bi nee na mi ngi gërëm mi ngi gërëm ñi fi teew ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ngërëm li mu koy commencé comme ni mu ko waxee ci njabootu Cheikh Mat Djimbira njabootu Cheikh Djimbira di gërëm sunu mag sunu sang mu Mouhamadou Djimbira doomu Cheikh Sadbu ak njabootu baayam gépp mu nekk ca bopp ba di gërëm ni mu ko waxee Cheikh Taari ak njabootu Cheikh Sidi Biir yëpp mu nekk ci bopp ba di gërëm Cheikh nag Faaral mi nga xam ne tey moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Mamour yëpp yàlla yàqi nokk yëpp yi leeram di gërëm ay jigéenam soxna Mame Marème njabootu soxna Mankoy Djimbira njabootu soxna Ami Djimbira ak njabootu soxna Saloum ak njabootu xale Djimbira ma nekk Touba yéen ñëpp xalifa bi nee na mi ngi leen di gërëm di leen sant di leen delloo di wax yàlla nu yàlla may ñu teewe déwén waaw bu gërëmee nag mi ngi gërëm mbooleem taalibe yi nga xam ni sukkoon nañu jébbalu ci Cheikh Mat Djimbira ñoom ñëpp ñëpp ñëpp tey ku nekk ku ci nekkatul ci saw suuf sa njaboot a ngi ci kaw suuf di fàttaliku cheikh jagleel bi mujj làqu barki démb fàttaliku cheikh ndaxte Ndiaye fii la ak ñeneen cheikh Moustapha Thiandoum ca Malikounda moo daan taxaw fii naan ahlan bi shahri mawlidi sahru nabi yu lam jëbi kon ñooñu ñu ngi leen di fàtt ñu ngi di leen ñaanal ak mboolem ñëw ji do ñëw ñi daw li ñëpp mi ngi gërëm taalibe yi taalibe yi nga xam ni moo xam mag moo xam ndaw moo xam góor moo xam jigéen bàyyiwu leen kër cheikh ji mbiram gent taxawal ngeen ko dundal ngeen ko loolu mi ngi nekk ci sant di leen gërëm di gërëm xale yi nekk ci gannaaw Cheikh Taalib Yenta di taxawee tant bii di ci sonn ñooy jële chaise ba ngaay du mat mille et quelques chaise mu transporté ko andi ko ba ñëpp toog ba mu def kon yàlla na leen yàlla fay ci bàkke Cheikh Mat Jimbira moom amul lu mu fay waaye bàyyi na leen ak bàyyi ak Cheikh Mat Jimbira yàlla na yàlla fay leen di gërëm it jigéen ñi nga am ne ñoo nekkoon ci waañ wi waañ woo dem ay jigéen dafa nekk jànkoonteeg tàngoor wi jànkoonteeg safara si ngir rek beer leen nit ñi ak teral leen ci guddi Seydina Muhammad daan naa dégg Cheikh Mamouri di wax ni yàlla yàlla yokk leeram bu bisu Cheikh Seydina Muhammad ak seen léppay bees ku amul woon am ku amoon da nga gën a kon yàlla nu yàlla sedd ci loolu waxam jooju ba nu barkeelu ci barkeel bi benn kenn du ci ëppale ahlul jëmmira ñi ngi leen di sant ci turu sëriñ bi moo nu joxoon micro ni nu nanu ko waxal nanu ko mottalil waxam moo gën a mat sunu wax magam moo gën a waxam moo gën a yéegi sunu sunu sunu wax waaye dañ ko ciy jiis dañ ko ciy jukki rek ñi ngi gërëm it Cheikh Moussa Diouf mi jóge Malicounda ak waa këram yëpp yëpp yëpp Cheikh Moussa gërëm ko ak mu nekk rek mu taxaw takk ndiggam mel na mu meloon di gërëm waa Ngaay Mexe waa Mbuur waa Joal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp ko fi root rek buñ la tuddul xool nañ la yëg nañ la jox nañ la sa cër yàlla yàlla fay leen xalifa bi ñaan li mu ñaan yàlla nu teewe déwén at yu baree baree baree baree bare fàtte wunu waa ngay ngay fàtte wunu waa ngaay kenn fàtte wunu kenn mi ngi santaat njabootam gii yàlla yàlla may leen gudd fan wér ñu yàgg a toog fii di teeru ganub Cheikh Ahmed Djimbira yi di sant ñëpp sant nañu tamit waa kër Cheikh Mbaye Ndiaye Samb ndax lii seen baay daan taxawee ñi ngi fi tey Mamadou ngi fi Sàbboo ngi ñëw insha allahu ndax seen baay la Cheikh Ahmed Djimbira jagale woon guddi gi ñii di ci yokku dañ leen di jàppale rek waaw waaye wax dëgg yàlla ñoom ñoo war a taxawee guddi gi danañu ñëw ca kanam incha allah ñi ngi sant Cheikh Mamour Gueye ni ko sëriñ bi waxee duñu ci teeru dañu koy bàyyeeg yàlla rek yàlla mi am yàlla mi mën yàlla yàlla guddal fanam te eggal ay mébétam ci kër Cheikh Mat Jimbira kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw Cheikh xalifa bi nee na addiye Chérif lu ko góor a ak ñi mu àndal laaj lu am nag obligation la addiya du sarax ndax cadeau bu nu amaleen waa kër yonent bi dañu ko war a taxawal ndax pour wax maam jërëjëf yow mi tax ñu sàkkulu jërëjëf yow mi tax ñu bindulu kon ngeen laaj addiya chérif bu ngeen paree ngeen dajale ko indil ko xalifa bi moom moo xam lu mu ciy def ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp cheikh cheikh cheikh maam cheikh loolu lanu lu nga santoon defe naa ni mat na bu matul it ñun ñoo matali waaye bu matee ci sa la ak ndigalu borom bi tabaraka wa taala yàlla na ñëpp am jàmm ñu dellu ci jàmm ba tasewaat ci déwén ci kàttanu yàlla salaamaaleykum wa rahmatullah ana maam moom nag li nu xalifa bi sant ci la nu ko teg ci loxoom la nu ko na wax na wax ku war a way na way bu heure am bu jeexalee nu jox keneen ba fajar incha xalifa bi nee na ñu àndandoo ñun ñëpp julli ñaanalante ba déwén salaamaaleykum wa rahmatullah ah, waaw kon nee na mi ngi gërëm sécurité bi kenn day fàttu mais bu ñu nee administration bi politique administration locale bi yóbbaale nañu ñëpp chef de service départementaux yi ak sécurité bi sapeur pompier ci mbaaru daara jii la ñu yendu wax dëgg yàlla si xalifa bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax jaaraama. ngeen demé sen ay patron ngeen ni len khalifa bi kontaan la ci sen taxaway ma sha allah kon doon la mu doon wa tax wa fan baax na maam mo sa micro mo léegi ni ñu ko waxan waxante noonu rek nga doxale ko non assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw jërëjëf si David kàddu yi mat na macha allah kon nak ñu déggé ko nonu rek li amuñu fi benn kàddu bu ñu war a ci kër Cheikh Ahmad Dimbira lu dul mottali rek li nga xam ni mooy yéene ñëpp ngir mbir mi rafet kon ñu jox Cheikh Ahmad Fadal Dimbira mu tagg Yonent bi incha allah. Também então escolar de falar, ci moom bi abdillahi jamaan wala tafarruqu bu ngeen àndee nekk benn rek yàlla dugal yërmande kon nag tey Cheikh Mathiouma dafa mu tëdd tey nii ñu gisee tey bii mënu mu doxee wax dëgg yàlla am nañ ci bëgg di kontaan ci loolu te bu déwénee incha allahu nii noonu ànd dana gën a yokk di ñaanal bu baax it Cheikh Mamadou Gueye ak coordonnateur Cheikh Mathiouma lu mën a xam ne ni taat bi ah ñoom ñoo ko taxawal Cheikh Mamadou Gueye bu baax. ànd ak woy juróom Cheikh Diop yi jàppale ko te lépp lu mu def rek ah ci ci ndigal la ko defee kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom lu mu mën ren jëlee yàlla mën na ko ndax ak ku nekk ñu teral waa kër Cheikh ba ci bërëb bi yëpp ba suñu mbubb yi ñuy sol ñoo ñu ko jox ñu koy sol kon nag nit boo defee lu baax pour mbooloo ba pour teewee ak lu mu euh, xam-xam wax ko nit ñi dégg ko ndax bu la waaye defalee lu baax te waxoo ko day gëm leneen moo tax moo di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla yokku leen di gërëm taalibe Cheikh ba ci bëri yëpp yàlla yàlla fay nañu salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Mouhamed Fall di gërëm mu ne ko ki ma doon tarbiya muy cheikh na cheikh Saadu Abi yi won yàlla ci sama bët yi te yàlla dafa raglu moo jàpp sama bët kon nañu def attention ki ñu ko seqal mooy cheikh Mouhamadou Djimbira ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di jiital ci ziar bi ak nuyu bi xalifatul am cheikh Saadu Djimbira axir laka ala bax mu seq ak Cheikh Mouhamadou Djimbira njabootu Cheikh Mouhamadou Djimbira ñu leen di ziare di teg ci loxo xalifa bi yal na la yàlla yàggal yàlla nga yegg yàlla nga yàgg yàlla nga yegg yàlla nga yàgg boo yeggee yàgg yal na ko askanu Djimbira jëriñoo umma du jàpp ci mbokk yi tey li ñuy màggal mooy juddu Seydina Muhammad ibn Abdallahi moom dafa wax ne man yurid allah bi xayran yufaqihu fi diin képp ku yàlla nam ma moom ay ngëneel ak cay xéewal daf lay wommat ci béréb boo xam ne majaalisu zikir la béréb bu diine béréb boo xam ne dañ fay fàttali ko yàlla ak yonent bi te fii béréb boobu la ndax Seydina Muhammad la ñuy fàttaliku kon yéen ñëpp discipline buñ ko amee dina la am seen ngëneel googu nanu déglu bés bi dafa am importance ci Cheikh Mouhamadou Djimbira moom Seydina Mouhamed ibn Abdallahi altine bu nekk dafa daan woor saaba yi daw ca moom ne ko gis nanu ne altine bu nekk yàlla da koy woor yàlla moo la ko digal wala ci sa tayeefu bopp la mu ne xaasal yow wëlidu fii yii bés bii laa juddu bés bi dama koy kon màggal ko ci Seydina Mohamed du dagan la ndax bu ko njëkk a def ki ni màggal kan la mooy Seydina Mohamed mooy kan ci présentation mooy xayru nabi man faaqat nubuwwatahu man faaxat risalatahu maa fi samawat adami saairal umam muy ki ëpp ngeen ci yonent yi nga xam ne risaala bañ ko jox peek na bépp téere bu mu yàlla mu sa wàccee ci asamaan ak suuf ci mbooleem peuple yëpp kooku la ñuy màggal war nañoo ànd ak discipline ndax moo la indil jikko yu rafet ya إنما بعثت لأتمم مكارم الأحلام كان موي سيدنا محمد سيد الخلق من أخلاقه حمدت في مقام الذكر من كمال الأدب mooy sangu mbindaafu yi nga xam ne jikkoom yàlla tagg na ko ci xuraan ci mat ak ci mbaax wante mooy akramu naas man afaalahu shahidan bi annahu qussa bi saqaa'i wal karam moo ëpp noblesse ci nit ñi moo ëpp élégance ci nit ñi moo ëpp classe ci nit ñi moom Seydina Mohamed ca tabe moom Seydina Mohamed ibadallah yàlla moo ñu tànn Seydina Mohamed wa duudu wa dàqal ko xoobil Moustapha kon nanu delloo yàlla ñu kal nanu delloo suñu borom subhanahu wa taala mu ñu kal naka la ñuy delloo yàlla njukkal mooy dañu taxaw ci les fondamentaux lan mooy les fondamentaux fa taqullah mastataxtum wasmahu wa atihu wa anfiqu xayran li anfusikum wa man yuqa nafsi fulaay lan taxaw ci les fondamentaux nanu ragal yàlla suñu kéem laay nanu nekk ak ñi déglu ak ñi toppee wante ak ñi def lu baax yàlla benn moo gën ci ñun bu ko defee mission moo a kaw tey jàppal lan mooy suñu mission wa maa awtul jinna wal insa illaa liya'buduun waaye dafa ni dafa mel ni nit yi taxawul ci loolu dafa mel nit fàttali ko yàlla moom kese nit ñi nga xam ne seen xol dafa wow du ñu yëngu wante bu dañoo cheikh na cheikh Sadbou cheikh Mouhamad Jimbira ñuy satla ñu ko di fecc di joxe seen alal mbokk yi nañ delluwaat dans les fondements nañu jox yaa sunu borom subhanahu wa taala lu mu moom wa isaa masal insaanu durru daa rabbahu muniiban ilayhi summa isaa awlahu nixmatan minhu nasiya maa kaana yarju min al-fadl wa shaa'a llaaha an yudilla an sabiilihi nit ci ñàkk jomam bu nekkee ci tiis bu nekkee ci ñàkkara bu nekkee ci ay lahu l-hukmu wa ilayhi turja'uun lépp day nax saay yàlla rek a fiy des ci yàlla lu ñuy dellu Boy Cissé mbokk yi nañu fàttaliku suñu borom subhanahu wa taala nañu fàttaliku dox suñu diggante suñu borom bëccëg bu nekk yonent yàlla Muhammad moo ko wax bëccëg bu nekk suuf dina woor doomu aadama juróom-ñaar fukki yoon soixante fois mu ngi may naan e Cheikh Mouhamadou Lamine Drame et Cheikh Mouhamadou Lamine Dramé soixante-dix-four إن العبد لتنادي كل يوم سبعين مرة يا بني آدم كل ما شئتم وسيهم فعل الله لا كل لحومكم وجلودكم هي محمد لبن درامي هي محمد لبن درامي بوجود ناس يوم defal lu la neex ci kaw suuf lekkal lu la neex demal fu la neex waxal lu la neex wàccaa ko dinaa lekk sa jëmm ji naan sa deret nañ ci bàyyi xel dina ñëw ci suñu borom wa ma xalaqna samaawaati wal arda wa ma baynahuma rahmaan yàlla sàkkul ak sama